waaw mais lu ñu la énuméré yëpp pourquoi ñu war a bàyyi président non pourquoi ñu war a bàyyi Amadou Ba Idrissa Seck Khalifa Sall Karim Wade xoolal dama ne euh, képp koo tudd ci opposition pourquoi ñu war a bàyyi ñooñu ñëpp ñu votel ñu votel Malick Gakou moom laa la énuméré à cette question là man mënoo ma jaxase ak quelques moom ah. bon moom sax moom moom moom xam nga moom tontu ci ay mbiram day yomb moom tontu ci mbiram day yomb di non waxuma ñeneen ñi ci des ñooñu ils sont de de l'opposition comme man te li ñuy ñaan yàlla mooy opposition bi gagné munoo fexe ba ma yéeg fi opposition bi quant à nag moom amado balaa nga naan am ne fa gañewul bureau gañewul centre gañewul commune gañewul ville gañewul bureau de vote ca parcelle gañewoo centre ba gañewoo commune ba parcelle Jamila la gañe gañewoo Ndakaaru Barta la gañe moom gañewul dara. il n'était pas en, en, en compétition. non Désolé. non non non non non. local Amadou était en compétition. Malick n'était pas en compétition. il n'était pas de liste. mais moo ngemb Amadou moo ngemb gaay moo tax ma ne la. Amadou moo ngemb gaay Amadou moo waaye non déglu ma expliqué la rek. non non non sa exemple non non non non non waaw a naqaree a naqaree jàppale kay. ban naqaree jàppale non ba nga naqaree waaye bàyyi li nga wax waaye ku ci nekk boo sañoon di nga gagné sa bureau de vote sa centre de vote sa commune gagné sa gagné sa ville daal di taxaw ne man kat fii nga xam ne man fii laa dëkk te di fi man sama bureau de vote samay mbokk dañoo ànd ak man sama centre de vote sama lii sama lii sama lii sama lii coalition c'est un ensemble de partis bu dee parti nag mën na nekk ensemble d'individus et cetera et cetera ñooñu ñëpp ngeen ñëw nag yéen wax ak sénégalais malgré leur gros moyens la lu nekk ñu def ko fii ci élection locale yi Jamil Sané amul xas bu ñu ko fi xasul day luy ak nangam sangam ak muy réunion ca kaw terrasse mbir mi du loolu yàlla moom mooy xotti xolu jaam yi bu la naree dimbali dugal la ca. te na ci dugal Malick. ga dañ ko ci dugal. donc Gakou président prochain président. Malick Gakou. Ah. may yow yaa ko wax léegi nii heureusement deux cent milliards de budget moom moom moom jaar na ci jaar na ci nii nii nii nii ay lo non dama ne. waxu sénégalais non déglu ma expliqué rek sénégalaise nga. waaw ah, waxu non non dama ne sénégalaise nga mais dama ne. Ah. yow bu ñu toogee Sénégal fii nii di wax suñu waxee El Hadj Malick rek. may waxal rek te yàlla rek tax benn réaction la ñëpp di ñëpp di wax moom de ndeysaan ak a baax. ak a baax ak a yaru. jërëjëf waaw non da la rek mais lii nag moom bu dee moom mu yorul réew man xamatuma lan mooy yor réew réew boo ko yor da am yërmande dangay baax am xam-xam def nit ñi gis bu mu nekk ne sa xol mën na nekk sa xol nii ba pare nga am ay moyens bañ ko joxe wala bañ a dimbali doomu aadama yi. donc Gakou prochain cinquième président. ñun moom la ñuy ñaan yàlla. te am nañ yaakaar ne président El Hadj Malick Gakou mook Macky Sall mii ñooy defandoo passation. de pouvoir merci beaucoup. allahu rabbi.